Euh, ak l'entreprise sociale yi amoon na coow rëy mais dernièrement vraiment autre chose moo leen occupé. Mm-hmm. mais ce sont des questions très importantes. am na am na solo euh, mais bon ma def benn kii bu ndaw que je me sentirais très mal euh, on a cité beaucoup de nos camarades de parti et par mon frère commun. Mm-hmm. mais bon moi je me sentirais mal de parler de ay nit yi nga xam ne. newuñu fi pour défendre seen seen bopp. pour mm-hmm. donner la version en tout cas la vision. de ce qui li mu leen di waxal. Mhm. donc loolu loolu mooy li ma li ma li ma li ma li ma gis li xew jot naa nag duñ ci ñëwaat s'il y a des ressentis les Sénégalais on de tout ce qui s'est passé suñu mën nañ ci def émission mais ñëpp xam nañ ne nous nous avons été constants depuis ba ñu doonee Pastef ba Pastef nit ñi ñooy ñëw di dem. te ña doon ñëw di dem ñëpp fa ñuy mujjee koo si gisoon ñu ànd tey suba fu mu nga mujjee pouvoir donc on a senti des choses depuis longtemps parce que la constance mooy la nga nekkoon nga nekk ca yaa nga doon opposé yaa nga doon opposé ko tu fais de radicale on a toujours été radical par rapport à nos positions mm-hmm. donc on a un même discours un discours qui n'a jamais vacillé qui n'a jamais changé ki a été constant du début à la fin donc loolu laa ci mën a wax te ñi muy wax ñooñu ñëpp je pense que ñu ngi ci lu lu ñu nekk ba tey euh, euh, bàyyiwuñu ko position yu ñu occupé mënoon nañ ci transiger moo nañ ci euh, seet nu ñu defee su nekkee seen bopp rek moo leen ñor donc man je présume que donc ñooñu ay nit ñu baax lañ ñu ngi seen constance ñu ngi xeet li ci des nag quand on de ressources mm-hmm. man Afrique rek lañ koy ooyee malédiction vous vous rappelez quand ba ñuy commencé am li muy wax nii yëpp ñu naan mooy est-ce que malédiction yeneen yi du ñu dal. mais c'est arrivé. justement c'est c'est c'est là depuis qu'est-ce qui depuis mu ngi wax président Sonko naan wéy il fait dara non président Sonko li wax man kenn mosu ko oh parce que li muy wax yëpp da ko documenté da ko teg fu leer on l'a jamais appelé parce que li muy wax lépp dëgg la. beaucoup de ce qu'il disait sax d'ailleurs euh, les ay kii kii de de de de l'État les les services de am na lu bëri dañ ko dëggal. euh, quand il parlait de de l'affaire euh, comment dirais-je euh, titre Bertin bi fii yegg c'est ce qu'il a opposé d'ailleurs qui a motivé le dossier Sonko bu ñuy am fii nii nit ñi naan variance la parce que il aurait dit que nit def na lii def na lii te effectivement euh, euh, Gassou Gassou Gassou ah ben les les Sénégalais les Sénégalais sont en train de nous de nous écouter man euh, dama man gis nga dans nit di wax wallaay Asim dama lay jox euh, gëdd bi nga xam ne même su ma d'accord wutoon à 1000 pour cent de ce que dama xam ne am nga droit wax sa xalaat. Mm-hmm. ñii bëgg a déglu tamit bëgg nañ nga yeggale li ñuy wax peut-être intéressé na la. Ah, dama li ma li ma si bëggoon wax. dama bëggoon wax ne bëri na lu président Sonko di dénoncé su nekkee noonu lañu wax ne noonu la duggee ci politique li nga xam ne bañ ci duutee baaraam ag kii IGE ak yeneen yëpp wane nañ ne lépp wax lu bëri lu nekk la te Sénégal yi xam ne lu bëri dëgg la gis nga en Afrique. nous avons cette fâcheuse habitude de penser que benn élite mooy nekk ci kaw accaparer richesse ñun lan moo doon suñu slogan lu ñëpp jot na lu ñëpp bokk ñëpp jot si ñun noo on a été très clair que souvent nos peuples dañuy toog si ay miinu diamant ba pare di yelwaan ça tout le monde le sait pourquoi l'Occident instant yi nii teg boppam Afrique fii ba kanam di di di di di di di di faral di di di di di di di di jéem a consolider nit ñi nga xam ne ils sont foncièrement seen intérêt la ñuy défendre quelque part et ils ne font pas foncièrement pour le pour le pays qu'est-ce que ñun ñun mais suñu soubassement nekk sax Pastef c'est ça en fait ñun Résistance Benno mm. mooy loolu quand on te parle de patriotisme mais c'est mooy mooy année li ñu doon wax noonu depuis combien on a dit qu'il faudrait négocier les contrats. Mm-hmm. am na dëkk yi nga xam ne ñooy exploiter <coughs> euh, quelques maladies euh, yaa ko na wax ci ci ci Niger bi avec l'uranium. Mm-hmm. <laughs> Euh, quand ils ont compris compris ba ñu commencé toucher leur intérêt qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois que l'Occident pense qu'il y a un dirigeant ou bien ñu jóg pour. Euh, contrecarrer leur intérêt et souvent par patriotisme ñu ngi sa kaw. Mhm. quand Kadhafi a commencé à parler de monnaie l'union africaine. fa mu mujj mhm. à chaque fois quand c'est sincère et sérieux ils sont derrière toi donc ñun Pastef xam nañ ne ñu ngi si ñun ils sont foncièrement contre nous nous sommes pas leurs candidats parce que nous sommes les patriotes li ma ci bëgg a wax mooy conscience bi li ñu wax sénégalais yi taal nañ xel yi quelqu'un l'avait dit un de mes frères de taal nañ xel yi te leer na. li xew Sénégal sénégalais yëpp xam nañ ko que Pastef li muy wax mooy dégg sénégalais yi xam nañ ko lu tax ñoom ñu ngi ne ils ont un bilan à défendre soyez à l'aise pour compétir avec le Pastef c'est simple. non dans l'intérêt de tout ce qui se passe depuis des depuis des depuis mois. de ñuy euh, ñu si rey ay sénégalais. am ngeen un bilan à défendre. Mhm. vous pensez que vous avez bien euh, travaillé. vous pensez que sénégalais yi gis nañ lépp li ngeen def mois je serai très à l'aise pour aller défendre mon bilan si urne yi non Mamadou ñi dañoo wax lu bari ma déglu <laughs> foog nga may may parce que souvent gaaw si danay wax ba doyal relancé wu mais il faut que ñu xam ne ñu sommes dans le passé ñu sommes sérieux gaaw si warul man si sama xalaat c'est euh, euh, comment comment su naan Ousmane Sonko di comparer boppam ak Sonko. dafa bëgg Ousmane Sonko doomu aadama doomu aadama la. mais nañu wax ne la contribution di président Sonko. Mhm. à l'avancée démocratique bu mu tekkale boppam dafay bind. bind na si décentralisation mook lootu laa li nga xam ne ñun ñu yow si ay collectivité man dama ko def livre de chevet am na ci am na ci solo bind na ci pétrole bi muy wax livre la ci livre la ci teg mhm. bind na solution bind na si leneen ak leneen li nga xam ne mu ngi koy waaye teg si table bi du ay affaire uñ compagnonnage rek noo àndoon nag ñoo doon naan ka fekk c'est la contribution ban valeur ajoutée nga ànd si l' espace public ban valeur ajouté Euh, lan nga teg ci table bi ndax jaral na la ko ndax jaral na la sa au moment où il est en prison au moment où il perd des jeunes hmm. au moment où il n'a plus de vie de famille où se trouvent les autres di daan dire ne ñoom ils étaient le jot naa ils étaient pour beaucoup tu le vois même plus apparaître depuis qu'on a commencé à emprisonner à tuer et cetera pour beaucoup ils ont disparu de la Sénégal gis nga bëgg sa réew du ay wax du ay euh, wër wërloo du ay neex sénégalais les sénégalais savent que Pastef boobu ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci combat démocratique bi parce que man du combat contre qui que ce soit mm. c'est un combat pour la démocratie gis nga nag ressources yi moom laa waxoon sànq et je le répète encore mm. euh, récemment euh, l'histoire nous a donné raison ay émeutes am na Sénégal oriental encore combien de images yu ñaaw a ñaaw combien de Sénégalais bon temps on était tués comme ça soo xoolee villages yooyu noonu c'est des villages qui pas d'eau soo gisee fi ñu dëkk alors à côté so euh, ñi ceux qui sont dans les mines d'or su ñu waxee nan la gaa yi dëkkee foofu nan la tubaab bi nekkee tu penses que ñoom ñu sont en Europe. à côté il y a l'extrême pauvreté. des Sénégalais nekk ci ay ay ay ay mines mines euh, comment on le dit euh, clandestins yi nga xam ne mines yi nga xam ne ay dañ fay sotti produit boobu ba foofu noonu sax pour leur santé leneen la leneen la ñuy wax mm. c'est ça l'État. actuellement du Sénégal. Merci. les Sénégalais profité wul fépp foo dem actuellement amul benn population buy fii Sénégal. Mhm. bi nga xam ne ñu ngi fay exploiter allez à Diogo. moi j'étais enseignant dans cette ah, non j'étais enseignant dans cette zone. mm pour nga am fa pour nga am fa dara. c'est c'est ces gens de Diogo là mais dañoo jël seeni terre ak yooyu noonu te tey jeunes yi su leen ko waxee mooy comme d'habitude l'éternel problème des compétences. dañu leen wéy jëlee fi xam nga ñu fay jël ay gaskat ak ay nangam début projet quand projet se terminé les gens sont de Dakar sont d'ailleurs ñoom ils ils ils n'ont plus ñoo gis amatuñu terre ils n'ont plus de ressources pour béy texte lañ fay exploité sa quitté dans le temps fële directement ay raay yi dey quitté directement di leen romb di dem gis nga gis nga foofu laa daan le Mamadou Mamadou Awa tant que les pays africains ñu ngi bàyyi xam nga euh, Pastef avait proposé lan la ñu proposé et eh, des pays africains le font et c'est pas diable il faut que ñu def appel à candidature des Sénégalais bon teint qui d'ici et de la diaspora jàng-jàng bi war bi nga xam ne politique uñ politikaatuñu ils sont compétents ñu jox leen mën nañ mën nañ mën nañ mën nañ euh, contrat yi ñu kii ils ont l'expertise euh, bu nga xam ne dinañu permettre que le Sénégal duñ ci génn toujours ñu ñu ciy nax duñu tenir en dirision on a perdu trop de contrats on s'est mal e et ñun li ñu ci def nañ ci am ay tuuti rek demaale ak moom qu'en est-il des Sénégalais que du peuple entier kii ressources yooyu suñ ko gérer woon ni ñu ko waroon gérer je pense que Sénégal tey du nekk fi mu nekk